di nuyu di leen ziyaara di leen sago bu baax itam ci jotaay bu mag bi ngeen teew waaye di beral ay kàddu nuyoo ak cant ak i ziyaara bu baax suñ sëriñ bu tedd bi di sëriñ Cheikh Aliou di sant bu baax itam ak gërëm mbokk yi tedd yi bàyyi seen yitte yëpp teew ci bés bi nde jamono ji mu teew woote ñu wuyu si jafe na waaye fexe nañ ba e, dagg yitte yëpp ñëw teew ñu ngi leen ci sant bu baax ak gërëm kon samay kàddu dama koy sof rek ci li yu baax yi jàllale waaye jëme ko ci e, ñun ñun jeunes yi jeunes yi nga xam ne suñu borom dafa dogal ñu nekk biir Touba ak sax lii lii wër Tuuba ñu xam ne suñu liggéey ñi liggéey dafa war a bokk maanaam daf ca war a bokk eh, liggéey bu tedd bi di di maa u war di fexe wax dëgg yàlla daayira yi ak association yi ba ci fédération yi ñu xam ne liggéey bii di maa u eh, na foo xam ne maanaam ñëpp ci ñëpp ci war a bokk nde sëriñ bi bi mu ñaanee boromam mën nañ ko déggee ak ñaan wala sax ak tegtal di wax ne wa maskani sallim min alfujjaari waaye wamnun ala al ahli bi ma in jaari loolu bi nga ko suñ borom mayee dafa sant suñ borom ne alhamdulillahi ladi shaqana xayra sarabin wala ida waqana alhamdulillahi jazili nicma ala xuruji ma i ayn rahma kon cant googu man damaa jàpp ni ñun jeunes yëpp ñoo ci war a bokk jeunes yi nekk biir Touba bokk ci mbootaay yi comme yi ma tudd léegi muy association gi daayira yi ñëpp ñoo ci war a bay seen waar ba mu mat sëkk ni ñuy bokkee ci ci cant googu ndax dañ ko war a santale sëriñ bi mooy ñu fexe ba taxaw temm ci yaatal liggéeyu Maou Rahmati bi fexet ba taxaw temm ci maanaam matale mu gën a mu gën a àgg fépp fu ñu koy fekk waaye itam taxaw temm ci maanaam yaxanal li nga xam ne mooy mooy mooy ndoxum Tuuba ba mu mën a sakkan mu mën a yaxan ci biir kër yi ak mbooleem fi ndox mi àgg euh, moo tax waaye loolu damaa jàpp ne sax ñëpp la war ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk bay sa ci loolu maanaam war na kon loolu eh, kenn ku nekk war na cee bàyyi xel baax a moo tax waykat bi di wax naan toloolee kuddib jullit dama jël la lépp murit lu war la nga bay ciw sas bëli am ci biir Touba ndabar képp sëriñ Touba yemul rek ci murit lu far la ba daj kaw suuf ba foo dem dëjëg Touba kon loolu day mel ne maanaam bàyyiwul kenn mu ne lu tee kon ñu jóg ci gaaw pexe boole sunu alal suñuy xel suñuy xam-xam ba ndox mooma ñëw tuuba moo ndax ndam lu yaatoo nii moo ndax yiw bu mag gi nii murit war na cee yaafus tabax leen mbégum tuuba kon loolu ñëpp ñëpp la war waaye ñun jeunes yi ci fànn woowu ñun ñun la gën a war mu teg ci ne ni sëñ Bamba nekkee mbër mu ub làmb yépp tey ni ngeen war a nekkee mbër yu ngembul sëriñ tuuba te xool buntu yiw yi feeñ ñu ciy joxe seen alal te xam ne ku am ngor tey sa jëf war na fiñ Tuuba kon jëf jooju ba tey damay dellu di gis na rek ñun jeunes yi ñun la gën a war mu ñu ma tudd léegi eh, suñu borom dogal na daayira yi bari na lool association yi ñu ngi fi eh, ba ci fédération yi kon liggéey bi dañ ko war a jël boole ko ci suñ liggéey bu baax a baax kon rawatina buñ ko boolee ci méthode boobu nga xam ne e, maanaam Miftahul Muna e, maanaam da koy doxal méthode bi mën nañ ci jaaraat képp keneen koo xam ne gis nga méthode koo xam ne moo gën a rafet boo ñu ko àndalee danañ ci fexe ànd ak yow waaye kon daal ñu xam ne maanaam li nga xam ne mooy Miftahul Muna moom e, ci fànn woo bokk na bokk na ci li muy doxee liggéey boobu nag yenn saay day dem. ba ci biir kër yi day dem ba ci biir kër yi nga xam ne da gis koo xam ne ab jiwoo dafa toj ci buntu këram wala sax mu toj ci mbedd mi jaar ci këram waaye dañ ci xaw dañ ciy xaw a maanaam xaw a tayel nde kii jiwoo toj ci buntu këram lii war mooy mu def ci yitte bu baax a baax ba yëfe saafara wala tiwo bi jaar ci mbedd mi jaar ci këram mu def ci yitte bu baax a baax bu ne ba door a woo li nga xam ne mooy maa orxma wala kuréel gi lëkkaloog maa orxma waaye dañ naan rek mën nañ woo maa orxma wala kuréel gi lëkkaloog moom e, mel ne daal dañ koy xaw a aj ci addi addi yooyu ñu joxe déedéet war naa weesu foofu kenn ku nekk war nga di ci bay maanaam sa bu baax a baax ngir maanaam liggéey bi fépp fu ñu yaakaar mu àgg fa maanaam yaxanal gi maanaam gën a mën a am kon liggéey boobu e, maanaam ñëpp la moo tax mu waxaat ne liggéey Serigne Touba Eh, la maam yi yéege woon ba am ndam yu dootu jeex te lii wóor na waa Touba te wallahi buñ tënkoo ci ak buum taree ci ñoom balaa yàgg ngeen am ndox mu ndox ngoog méngoog dëkkub Touba kon loolu maanaam day eh, maanaam day day day jub ci ne ñun dañoo war di dellu ci maanaam mag yi ndax mag ñi suñu borom dafa dogal ñu daan def li ñu woowee ay tool yi àllarba di ko yóbbu sëñ bi jamono nag dox na ba toll fii nga xam ne tooli àllarba mën nañ ne liggéey bi ñun ñuy liggéeyal maa raxmati dafa méngoo lool ak tollu àllarba yooyee mag ña amoon liggéey bi ñu liggéey dafa méngoo lool ndax dajale gi ñu koy dajale eh, ba mu àgg fi a àgg ñu dem jëppal ko sëriñ bi dafa méngoog ni ko sëriñ bi daan ni ko mag ñi daan dajalee ci àll bi ba mat ñu dem jébbal ko kon loolu ñëpp ñëpp ñi nga xam ne maanaam ñoo ci war a bokk eh, loolu lu war la daal ci gàttal maanaam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax jeunes yi maanaam ci lay gën a insister ñu ñëw bokk ci liggéey bi nga xam ne ñu taaxul mën a maanaam ci lee liggéey ngir mu gën a mën a tasaaroo ci yeneen gox yi maanaam euh, làng ak daaru ma naan ba ci Touba gépp kon daal ñu tënk kàddu yi ndax fi war a jar jël ay kàddu xañ na des na te mu ngi guddi ñu ñaan ñi nga xam ne di leen ñaanal ñoo ŋànk maanaam maa u rahma ko ci suñ sëriñ bu tedd bi ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéeyu maa u ba ci daayira Miftaaxul Munaa bi ak fi mu toll nii ñi am yëg-yëgu bokk ci ñu ngi ñaanal ñëpp suñu borom maanaam téel ñu boppam ba liñ bëgg ci maa u rahma ñu am ci lu kaw suñu jot dañuy ñaan sëriñ Tuuba mu ngëpp maa u rahmatin ba fu làmb de ay ndam ci lim yéene waa Tuuba dalal ngeen suñuy xel tey saral ngeen suñuy xolit dalal ngeen suñuy xel tey seral ngeen suñuy xolit ndesin yéene fu mu àggee mu dik romb biir Touba kon ñu ngi delloo di sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo maanaam ñëpp ñoo ñu si war a jàpp ñu jàpp ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu. ñoo ngi yëkkati nuyoo ya, bu sel ci mbokkum julit muy ya, nuyu ay mbokk julitam. di jéglu ci kàddu yi nga xamné dañ koy yëkkati ci kanam sang yi fi teew waaye ñu xamné dañ ko def ci ku mbokk taalibe talibé yo xamné dañ ko tek muy digal ci seen mbokkum talibé. ñuy sant suñ boroom bu baax itam ci jotaay bii nga xam ne day jotaay boo xam ne lépp sëriñ Touba la li tax lépp sëriñ Touba la mooy liggéey bi nga xam ne moo fi dajale nit ñi tey muy liggéeyu sëriñ Touba boo xam ne ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ci ñun bàyyi na ci pas-pas bàyyi ci xalaat bàyyi ci yéene joo xam ne. mënagu ko waaye ñoo ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne moom moo am kàttan ci lépp ci yëg gi mu yëg sëriñ Touba ak liggéey bi ko sëriñ Touba liggéeyal ci wéetal ko ak jaamu ko ñuy ñaan mu kàttanal mbooleem taalibe yeeg jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ba yéene jooju di yëngu ci seeni xol te seen kàttan matatu ko suñ borom dëgëral leen te kàttanal leen ko ban jëf ko fii ci dëkk bi mu xam ne rek jotaay bi daanaka mën na ne ñun suñuy kàddu mooy ak cordinateur lañ boo xam ne dañuy coordonné euh, nit ñi nga xam ne dañoo am pas-pas bokk ak waa Maou Rahmati pas-pas te nam ma liggéeyal Serigne Touba ci ndox mi coordonnateur nag mooy koo xam ne day coordonné rek mu mel ne ndaje mi nag tey ki nga xam ne mooy kilifa Maou Rahmati te lépp lu waaye di def ci maamu rahmati jëm moom tax nga di ko def ndax damay wax faral di wax ci jotaay yi ne ñun de ay muhaajiroona lan yoo xam ne dañoo gàddaay fekk si Sëriñ Tuubaa te fa suñu yéenee mu mel ne nag kon war na ci ñun ñu sàmmal Sëriñ Tuubaa war maam te sàmmal Sëriñ Tuubaa war maam ba ca jiitu mooy sàmmal ko dëkkam bii ak yoonam bii mu mel ne ci dëkkam bii nag ni mu waxee woon ne Touba harasaha Allahu néew yàlla yàlla na ma ko yàlla aaral waaye dana yàlla dana ko aar noonu la yëkkatee cër yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ci mbooloo mi nga xam ne danoo gàddaay nekk fi nu ñu mënta ñàkk mu partagé ko ay nit ñu nekk ay jëwrin yoo xam ne dañuy jox ndigal ñan ma jëfe loola. ci wàll wii nag di ndox nga xam ne ku tudd dëkk ndox ngay njëkk a tudd mu yëkkati cër boobu yëkkati ko. sëriñ Saliou Mbacke mu baax mi yàlla na yàlla yokk leeram lool te taasuñ ci barkeem yëkkati woon ko 2006 teg ko ci loxoom sëriñ Cheikh Mbacke Aliou mi toog may faral di wax ne kon képp koo xam ne yaa ngi dàq ngërëmul sëriñ Touba ci ndox mii mënoo koo am lu dul ne sëñ Cheikh da la ca gërëm mu mel ne itam lii tax ngërëm mën a am ci ab liggéey mooy nga am ndigalul liggéey liggéey ba kon ñi nga xam ne dañoo am ngërëm ci sëñ Cheikh. ngir liggéeyal Serigne Touba ci ndox mi ak taalibe yi buñ ci dee jëf jëf joo xam ne mi ngi leer Serigne bi ndax ñun dañuy dem di jotal Serigne bi lépp loo xam ne Serigne bi gërëm na ko sëñ Sidi Muxtaar gërëm na ko mbooleem njabootu sëñ Touba gi gërëm nañ ko su ko defee nag Miftaahul Munaa gi nga xam ne tey fi lañ taxaw ñoo ngi seereel ñi fi teew ñëpp ak kuy dégg suñ kàddu ne. jëf jii ñuy jëf ngërëmul sëriñ bi lañ ci am ndax dañ ci amoon ndigalul sëriñ bi lu jiitu tey ñu leen ciy soññ waaye di ci dal xel bu baax itam ndax lépp loo xam ne yaa ngi koy yëkkati di ko liggéey geesu gisoo ci ay ndaw gisoo ci ay jigéen na ci sa xel dara di waaye lépp loo xam ne it yaa ngi koy yëkkati di ko liggéey gis ci ay ndaw kese na ci sa xel dara di ndax ndaw kese léeg-léeg féréw li ko dafay yomb waaye nag alhamdulilahi rabil alamin ndax ndaw yi am nañ ay mag ñoo xam ne dañ leen a gunge kon mag ñi nga xam ne ñi nga leen di gunge ñoo ngi ñaan ñu ñaanal ndaw yi te itam ñuy ñaan ndaw yi nga xam ne dañ fee teew te jóge ci yeneen i gox yu fasantikoo ci dëkk bi nañu nañu coppee li nga xam ne ndaw yi def nañ ko tey muy liggéeyal Serigne Touba loolu bu lawee ci dëkk bi ba daj ndax lii fi teew tey bu fekkente ne fex nañ fexe nañ ba fépp foo xam ne ay ndaw ngi fay yëngu ci biir dëkk bi ñu jéem leen a jëmbat ci liggéeyi Serigne Touba yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk bi defe naa ne lu adduna yàgg-yàgg dana mujj Touba ñi fi nekk duutu ñu tàllal loxo kenn ci ndimbal te itam yelloowul dëkk bu toll ne Touba di tàllal loxoom fenn bu ñu ko xamee sëñ Touba fàggu na ko fi waaye li des mooy nuñ koy exploité lii nag bokk na ci li nga xam ne dana waajal ëllëg gi damay wax ne. nit ku nekk war nay xalaat ci subay Touba lan la war a doon ak nuñ koy doxale ndax lépp loo gis mu taxaw ci àdduna gannaaw buñ ko ñaanee ba pare ay pas-pas yu ànd ak yéene ak xalaat yu dëgër ñoo koy taxawal. yàlla nu yàlla dimbali nag bañ bokk ci ñi nga xam ne sunu jamono dañ fiy taxawal dara yàlla buñ fi neenal dara. ñu ngi amati mbégte di teewati seen jataay bii. am ngeen leen nuyu ci turu Serigne Cheikh moom Serigne mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bii di sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne nii ñoo aju ci daayira Miftaahul Muna bi ak ñi nga xam ne jàppale lépp ci liggéey ci bii ak gërëm ndax toll ni Serigne Touba bu la santee ab liggéey bu ko ñor ca yitteel ko ca xam ngeen ne ndigal loolu dafa ëmb lépp di yërmande Serigne yërmandeem yu jëm ci jaam ñu dénk ko Serigne Cheikh moom Serigne Aliou mu ànd ko njabootu Cheikhul Khadim gépp kon day mel ni képp koo xam ne ni taxaw nga rek ngir mission boobu am réussite kon ameel nañ la jaajëf ndax kenn ku nekk ñoo looloon fekk ci ruq ba nga nekk ak lu mu ruqi ruqi luqarte la ne la nañ ànd liggéeyal Serigne Touba waaye nag bu ngeen maase ànd ak Serigne Cheikh saa su nekk bu gestoo gis leen ci wetam ci bépp anam bépp liggéey boo xam ne ni mi ngi koy amal ngir lii sëriñ tubaa bëgg mu am. ba ngeen doon bokk ci ñi nga xam ne nii yéen a koy gën di soññe comme nii ko Serigne naa waxee léegi rek yitteem moom sëriñ Serigne naa ràññee nañ ko ci fii wante ci biti noonu lañ ko ci ràññee ci ay xalaat ca xalaat yi da koy xalaat ba noppi di ànd di ko jëf ak taalibe Serigne Touba yi kon nag Serigne naa dañ lay biral rek cant googa xam nañ ne Serigne Touba nga koy liggéeyal te kuy sëri liggéeyal sëriñ tubaa sa bopp ngay liggéeyal. waan nag day baax ki nga xam ne nii yaa ngi koy soññi yéene ko ndam ci Serigne Touba saa su nekk mu lay gestu di la wax ni ne jëf yëpp naa li nga xam ne nii moom nga may jàppale kon lii du guléet ñuy ñëw fii ci gox bi te nii nga xam ne nii noonu la xale yi maase di ay ndaw di liggéey ngir jëmi Cheikhul Khadim jël mission bi boole ko ci seeni mission di soññi seen i baay ak seen i ndey di ànd ak ñoom la nga xam ne moom lañ néewle ci kàttan ñu mottali leen di jëfandikoo seen i xel ba amal lu mel nii loolu am nañ ci amal nañ leen ci ak cant ndax bu dul woon mission bi rek wareef la ci Serigne Cheikh ak képp kum àndal ndax lépp lu ñu am rek Serigne Touba leen ko defal kon nag képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci toolub Serigne Touba bi rek ñoom dañuy am na yëg-yëg ci seen bopp. nekk ñoom ngay liggéeyal ñoom nga nekkal ci tool bi kon saa su nekk war nañ di leen wax jaajaf di leen ñaanale suñu borom dolli leen kàttan akug wér la nga xam ne xéewal moo koy defee suñu borom jox leen xéewal goo xam ne nii la nga xam ne mooy seen yéene da ngeen ko mën a àggale ci lépp ànd ngërëmu sëñ Tuubaa ndax lu ñuy def ci kaw suuf rek ngërëmu sëñ Tuubaa rek moo ñu ci mën a jàllale ndax moo ñuy mën a jariñ fii moo ñuy mën a jariñ fañ jëm ëllëg lu mel nii bu ngeen xamee tâche bi nga xam ne moom la Maou Rahmati yanu ndax dañ ne leen noppi nañ di wax ci résultat yi nga xam ne moom lañu am ndax amuñu résultat sëriñ Touba moo am résultat ndax Serigne Touba moo dul digle lu mënta nekk lu mu digle lu nekk rek dana nekk kon nag ña koy amal it da ngay taxaw léeg-léeg ni leen jaajëf wante lii day doon ak cant ak soññee rek ba nit ñi gën a xam ne lu luñ gën a jaaju rek ci liggéey bi rek am na lu des ndax la des mooy liggéey bi moo diisee noonu dafa mel ne ndax am na mbokk rek moo xam ne léegi maa ngi koy wax moom bi may laajaat ci yitte yi fuñ ci toll di rakk ci man dama ne ko taxawal infrastructure moo gën a yomb mais fonctionnement bi nga xam ne moom ngay fexe ba machine bu du taxaw benn yoon ca la koy laaj mu la koy jox saa su nekk loolu foofu la problème bi nekk ca waxtu woo teggee sa loxo rek boo delsee fekk fa lu raw la nga fa bàyyi woon wala lu yées la nga fa bàyyi woon kon mooy loo xam ne ni doo teggi sa loxo mukk kon nag ñi ngeen di dox di jëm ci yoon faaw léeg-léeg am na ci koo xam ne ni moom ndax taalibi dafa am koo xam ne buy def ci Serigne Touba du ko gestu di jéem a xool fa muy jëm du xool ba xam bari na du xool ba xam bariwul moom dafa war a jëf rek di jëf wante am na koo xam lu muy jëf nag ma ngay xool ba xam baa doyul baa ëppul kooku nag day mat di leeral li nga gàddu ba mu xam ne ni lu mu fa def lu mu ko naw naw na xam ne desul doyul te it bu ci ñépp maase woon xel mën a dal wante nag la muy bari bari bari ñu néew ñoo ci ŋànk liggéey bi def ko muy seen yitte kon nag ndokk ba nga xamee ni waa Miftaahul Muna ak ñiñ ko seqal ci Daaru Marnaan yépp ñi nga ciy jàpp di ci bay seenu laaj seen kemt lay kàttan ndax structure bu mel ni Maawu Rahmati suñu cheikh ni mu ko structuré yaakaar naa duñ ci dellu ci ni nga xam ne nii noon ngeen di joxe seen i participation wax ngeen ko fi léegi dangeen ngeen koy dugal ca banque ba ñuy seet li yittee yi ñu war a def ci loo xam ne mooy suuxat ndox mi bu boobaa administrateur mooy def décharge mooy mooy bind loola jox ko Serigne Cheikh mu signé ko ànd ak ñeneen ñaar gën gaa néew muy ñetti signature ci benn chèque ñu remettre ko ka nga xam ne nii mooy fournisseur ba wala mooy ka nga xam ne mooy exécuter travaux ya kon léegi yaakaar na loolu transparence bi dara gënu koo mat ci kaw loolu kon yaakaar na noonu rek la kon ne loolu moom dara soppiku ci wante chargement wu raxmati day gën di di saa su nekk ndax fa ñu fekkoon forage yi yokk nañ forage yi kon forage bu ci nekk dafa am lu koy dundal mi ngi mel ne ku yor fukki njab fukki gone wala fukki nit ci biir këram muy ab kaare jekki-jekki lu mat juróomi nit dolli ca yaakaar naa bu yokkul lam daan def yokkul njël la yaakaar naa danañ toog bis bu jot buñ martoo ak gore de mooy tax ñu ne regg nañ wala suur nañ wante kenn ku ci nekk dana xam ne nii la nga xam ne moom lañ fi daan samp ci njël muy fukki nit yu fi nekk buñ demee ba mat fukki nit ak juróom ñaar fukki nit ca yokkuñu njël ga yaakaar naa ne mos rek moo cay nekk jëfu gor rek moo cay nekk wante bu ñu xefee xiif dana fa am kon kon nag loolu moo leen wax ne dépense yi toujours fañ ko fekkoon ak lu ñu góorgóorlu rek day gën di yokk ca loolu lu sax lay doon ndax barab bu mel nii nga xam ne lu mu gàtt gàtt da nga fa wàññi 87 emploi yoo xam ne jël nañ leen ñuy liggéey ci biir mo xam ci chauffeur ya moo xam ci administrateur ak ñakoy accompagne ci liguey bi ak yëpp nga xam ne ñoo ñu en permanence lañ fa nek wër wu nek bu kenn ku nek cotiser bu kenn ku nek joxe adiyam ak buñ ko joxewul adiy da nga jema set ba ñoo ñu am luñ mëna bay seen kër ba mëna togal talibé Serigne Touba yi ci dess ci barab bi ñi liguey wa loolu nag bokk ci ñi nga xam ne ni pari bis lañ leen di jël ndax am na ñoo xam ne ni duñ ay employé permanent wante ñoo it dañuy set bis bi la nga xam ne moom la liguey bi laaj ñu jël leen kon koo xam ne dañ ne sa frais gën gaa néew bis bu jot dana jege lu ma deux cent mille kooku yaakaar naa bu ngeen ko wàññee ci bis bu ci nekk ci at mi ca maaw rahmati waxoon nañ leen ne amul dibéer amul ajjuma amul àllarba bis bu jot am na ñuy xëy ci terrain bi ndax am na loo xam mënuñ ko seetaan ñu ne leen kon ci diiru at mii rek def nañ ci lu ma trois cent muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juroomi yàq yàq yoo xam ne tiwo yi yàqu nañ ko ñu réparé ko ci biir ca loolu lu ci nekk ak coût ba nga xam ne ni moom lay laaj ak la nga xam ne moom la cee moom moom lañ cee def kon loolu da leen xamal dayo gi fa muy toll ndax ndox mi moom ñaari lay doom lenn li ñenn ñoo ko yàq ndax ñooy gas wala jaarale fu lu fa war a jaar mu laal tiwo bi ñu camoufler ko bàyyi ko boo demee tuuti pression bi am doole mu génn am na it foo xam ne xëy na ndox ma daawu fa àgg na mu fa doon àggee ba nga yokkee pression ndax ñun heure bu pression bi yokkee rek ba tiwo yi dañuy sant yàlla ndax xam nañ ne liñ liñ bëggoon ci nit ñi pour ñu am ndox mu doy ca nam waree ma ngay am kon loolu moom sant yàlla lay doon du mu diis di sant yàlla lay doon ndax tiwo yi amul ndox moom la ñuy bañ a dégg wante tiwo yi am na ndox bay toj loolu mooy alhamdulilah rek lañ ci wax xëy na la ñuy ñaan mooy am kattan ak vivacité gaawaayu mën a liggéey loola réparé ko ca waxtu wañ ko war a ndax kuy defar di wutit yaakaar naa doo yàqu doo yàq ka nga xam ne nii dangay ngay wut ca la nga am doyagul it yaakaar naa loolu am na ci loo xam ne nii doo doo doo ko yàq kon loolu bu amee ñu ciy def ngeen ñu ciy jàppale di ci jàppale Serigne Cheikh jàpp ne yéen ñëpp kenn ku nekk jàpp ne toolu boppam la boo xam da ko war a bay ba du booy loolu dañ naan dañuy sant di seereel ndax Serigne Cheikh moom li man mooy suñu lantinoor ci Serigne Touba ci biir liggéey bi ndax moom la ñu dénk moo ñuy seere lom seere rek la sëñ bi yëg waxtu wu sëriñ bi santeere moom moo koy jottilaat ba mu àgg ci képp koo xam ne moo koy jàppale wante cant nag jërëjëf lu mu tuuti tuuti ka jëful moomu ko wala yoonam nekku ca bu ko bu ca bëggee boole boppam it ma ngay nax boppam kon war naa soññiwaat boppam jóg jëf ba mën a dabi ji ña ca def ndax Serigne Touba am na yërmande googa kii mujj a jóg ak ka njëkk a jóg xàmmewu la ca am solo rek moo jógal jëm ci moom ca fas yéene ko liggéey liggéeyam bi nanga xam ne noon la ko bëggee kon yàlla na ci suñ borom wulli xol yépp ba nangul ko déggal ko ba lépp luy bëgg-bëggam rek mu doon suñ bëgg-bëgg mu doon suñ yitte cañ defee ko na xam ne noonu la noonu la ko bëggee kon loolu mooy li nga xam ne nii ci lañ leen di santé ci biir liggéey booba ndax xëy na beneen bi ci des rek mooy bu ngeen xoolee yokk nañ fi lu mat ñaari forage beneen troisième forage fonctionné gul mais léegi mu fonctionné ca it Serigne Cheikh mi ngi continuer di am ay promesse yeneen forage yoo xam ne dañ koy yokk loola wax dëgg yàlla bu ñëweet xam ngeen ne kon charge yi nga xam ne moom lañ doon gàddu day gën di bari loo xam ne ni bu ñu xoolee consommation quotidienne bi rek ci forage yi li ñuy def dana ne dana jege trois millions cinq cent jëm quatre millions ca forage yi lu mu gën a yokk yëf yi gën a yokk frais yi gën a yokk kon loolu lañ bëgg ñu bàyyi ko xel ba xam ne du liggéey bu tuuti wante nag lu mu nuru lu rëy rëy rëy lu tuuti la ci Serigne Touba kon nañ ko defal Serigne Touba nañ ko ko jëfal jëf ju sell di ñaan mu nangul ñu ko ca làqal ñu ko fu yàq yeggul kon loolu yaakaar naa lañ leen doon leeral beneen bi ci des it ñi ngi def yi pexe ba lii nga xam ne ni mooy ndox mu neex mi nga xam ne nii gis nañ ne di ci jégglu ñu bari ndax xas nañ ko tàmm te ki ko xas tàmm dootu ko mën a bàyyi ka nga xam ne sori na ko it bëgg na mu àgg ci moom te ñi nga xam ne am nañ yéen liggéey ci xam nañ ne kawe nañ ñun yitte ji nga xam wante nag nu mu leen ñoree rek yitteel leen rek yitteel na Serigne Cheikh nu ko rawee ci kenn ku ci nekk mu jege la nga am ko ca na ko bëggee ca doo ci sonn wante nag dafa am ay moyens yu koy am bu ngeen gisee li tax léeg-léeg ñu dem ba càgg jekki-jekki mel ne lu def pause ci distribution maanaam nit ñi sonn ci wut seen i mbànd bëgg ñu defaral leen ko dafa am lu ciy am ndax mbànd yi rek doyul dafa am ay oto yu koy war di alimenter boo demee ba nga xam ne li nga def nag sa maanaam sa euh, mobilité bi nga xam ne moom nga war a am muy oto yu doy roulant yi nga xam ne ñoo war a indi ndox ma ca fañ koy soxlaa demeetul noonu it yaakaar naa di tempérer loolu rek moo ci waral ndax yi bëgguñu di jox nit muy àgg ci di am toog diggante bu yàgg boo xam ne du ko am wante loolu it Serigne Cheikh mi ciy def yitte wante yaakaar naa nii nga xam ne nii moom la waa Miftaahul mun a def am ay kuréel lenn ay kuréel di ko def bu gën a yokk ca gën a takku ba la nga xam ne ni moo waroon a jëm ca oto ya di des di dem ca oto ya la nga xam ne moom la ñu dajale war ko yóbbu ci entretien réseau bi di dem ca entretien réseau ba bu boobaa yaakaar naa oto yi dana mën a yokk mbànd yi dana gën a mën a tasaaroo loolu lañu leen di ñaan ngeen gën ñu cee jàppale kon laal ñi ngi sant ñëpp di leen xamal ne rek lépp luñ ci def rek ci bañ a indi jafe-jafe ci biir liggéeykaay ndax ki nga jox mbànd muy distribuer di jox nit ñi moom yëkk nañ xam nañ ne bu mbàndam ñàkkee ndox la tax muy soññi njaboot ga ko wër ca munuñ koo ñàkk ca munuñ koo wuti ji feneen ñoo tax muy gën a sonn kon na muy amee pression ñun noonu la ñuy amee pression ci kaw ne que mbànn mu ci nekk dañoo bëggoon tey bu jeexee tey ci suba gi balaa di ñu duyal la ko wante nag Sëriñ Tuubaa mën na ko nañ gën a góorgóorlu rek loola yaakaar naa la indi lii ba fii dana ko jàllale ba ca kanam la ñu bëgg laal mooy ndox moomu gën a jege ñëpp di ko jëfandikoo ca nañ ko war a jëfandikoo réseau bi lépp loo xam ne yitte woon ni soxla woon nañ ko ci ñu man koo def nañ ko war a mën a defee ñi sant yàlla bu baax nag ñi ngi sant yàlla bu baax ci li ñu weesu fukki at yi matagul des na ay weer kon lu toll nii buñ ko amee ba jëmmi Serigne Touba di Cheikh Sidul Mokhtar sant ba compare nekk lii nga xam ne moom la gis na màggal gi ju weesu ñaar fukki at jàpp ñaar fukki at ak ci nangam ci gannaaw gisu fi lu mel noonu. cheytaani rajim bismillahi سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وخدمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين جناو بنو سنت سنبرم تبارك وتعالى نوني جلتي ينتبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنت سرين توبا خدم الرسول دينيان سيرين سيدي مختار سونو بروم جابلي كو با نال يي مو نال سيرين توبا مو اغالي كو اغالي والي نال يي نيكو جيتو وون اك نال بوبو دي سانت بو باخ دائره مفتاح المدى تي خلاط يو رافيت يي مو تيرل دي انيشياتيف يو ام سولو يو خامني defe naa ne tey fexe nañ ba nekk référence ci biir Touba ginnaaw ba nu siyaaree suñu mbokk suñu xarit suñu wëlëri Serigne Mbacke Daba Sarr di ko siyaaree Serigne Cheikh euh, di suñu bàyyi di suñu lépp nga xam ne bi ma nekkee Dakar gën faa féete ku fa ñëw tam xam ne dakaar nga jóge ñi ci ëpp da lay laaj ba xam ndax xam nga Cheikh Aliou bu waaw mu ne la danga fas ak moom wala yàlla na ko yàlla teeru ca àjjanay fi daw ko ziyaar yi suñu mbokk suñu xarit sëriñ Mass Diop mi nga xam ne itam euh, ku xelam rafetoon la mu doon jàppale bu baax lu bokkoon nekk ci session bu njëkk ba ci communauté rurale ba te sëriñ Saliou boole woon fa yabal te booba ba léegi mu def lu jafe mooy lépp lu masaan am ci communauté rurale bi ci lu niroog pay da koy dajale lépp def ko yóbbu ko verser ko ci compte ba ci turu Maou Rahmati lépp lu mu ci masaan am ci turu Maou Rahmati da koy def kon moom itam yàlla na ko maam Thierno Ibrahima Fati teeru dilen leen sant itam di sant bu baax istiqama sécurité bi ak dawaayir yi fi teew yépp di sant Miftahoul Mouna ci ni ma ko waxee léegi ñoom def nañ résumé bi j'ai pas besoin d'y revenir parce que def nañ ko de façon succincte et très claire kon alhamdulilahi rabbil alamin euh, li ñu tëral lu am solo la ndax dañoo fexe ba fent loo xam ne mën naa def école ndax euh, àddina ñaara ko yor ci lépp lu jëm ci àddina moo di liggéey liggéey boobu dafa am ñaari façon yoo xam ne ci lay mën a yembe mooy organisation ak méthode lépp lu mu amul rek liggéey ba mën naa sooxe la ca des mooy jaamu yàlla ba ëllëg nga am loo fa dawal ba boo demee am loo fekk ni ko Serigne Touba waxe won ne xamul teranga ju ànd ak liggéey ak aljana ju àndul ak jaamu yàlla kon lool defe naa leer na torop ñuy sante bu baax nak tax Serigne Touba ku ko am ñàkkatoo dara waaye nag dafa mel ne dañ koo desee xam ba léegi suñu borom da koo jaraloon lu ne yàlla ja maanaam Muhammad Rasulullahi jaral ko mu def sacrifice. ci dundam gep jël la gëna metti baye lu la gëna yom mu nekk xéwal xéwal gogé nak la ci ëpp solo moy nga xam la ci ca jublu woon waaye nag doo ñëw xéwlu rek yemale ko ci sa bopp danga war a xéwlu jox sa morom mo xewul li ma bëgg wax moo ndox mi mu waxon nga xamne wax nako ci téméré wala lu ko ëpp ومسكني سلم من الفجار ومن على أهلي بماء جار سما بروم ماي ما سما دك بي غا موسل ما تي كاتشوري تيب ماي ما ندخ يول لولو بام كو وخي ياغلا مان لي ماي فال دي وخ ني موسما خم لو بولي كاتشور اكوم دخ واي لو تي ني ka ko macce ko xam boo bi nekkee ci ndox mi gàllankoor yi yaakaar naa ne ki nga xam ne guddi ak bëccëg même guddi gi sax du nelaw mu ni ci loo xam ne daf lay màndal waxtu wu ne am catégorie doomu aadama yoo xam ne dañoo waroon toog fi ñu war a toog sañ-sañ bi ñu am ci toog wala ndigal li war a am ci saytu ko loola ndigal lañ am te di ko yàq yaakaar naa ne ku ñu mën a doon ci kàccoor yi lañ doon te sëriñ bi ci boppam waxoon na ko ci door a xam nag way woowu ne wa maskani salli minal fujjaari wal na la ahli bi ma ngi jaar sëriñ Tuubaa gisoon na ko téeméeri at ci kan ci ginnaaw euh, loolu doyul mu ne as xaytanaa xayra miyaahin yartawi charibuha wa xayra fawsin yaxtawi kon xamoon na ne ndox mu naqari am na Tuubaa kon ndox moo xam ne danga texe ci àddina texe àllaaxira cexe gi maa u raxmati indi na ko moo di ci kuy dégg wax ndoxum xorom mi xaw naa faagaagal jigéen ñi tollu barab ak xale yu ndaw yi ak sax mag ñi ñépp rek boo masaan seetlu bu jigéen tolloo barab bu njëkk bu demee njaarim njaarim moo fi sësoon moo fi amoon hôpital bu digne de son nom un peu bu ñu àggee dañ naan dafa xorom te xorom lu compliqué la fukki nit yu ne ci ñoom lu mat ñeent daanañ ci nelaw nelaw ci xolom si te yaakaar naa ne léegi bu matee benn bari bu benn boobee saxul ci di naan ndox mi kon loolu ak texe àddina am na foofu texe àddina nag texe àllaaxira nag moom dégg ngeen lu suñu maam ju baax ja waxoon ne ku fi am kër mooy sa kër ci àjjana mooy Cheikh Abdoulaye Lahad mi nga xam ne moo waral lii lépp tey ca dëggu ga ca bëgg ga Serigne Touba xam nga Serigne Touba lépp tàmbalee ci woon ci moom ci man mii itam nga xam ne tey moom moo tax ma mën a taxaw fii tey di wax ak yéen yàlla na ko yàlla fayal euh, ginnaaw bi sëñ Saliou gis loola féeteel lu fa ngir yërmandeem ci doon aadama yi euh, bañ ca jógee Sidi Lamine Bara jaar foofu ba ci Serigne Sidi Moxtaar mi tey ne nañ ci jaayante euh, Serigne Touba rek am lenn sëñ naa ñu ngi lay sant bu baax ndax moo nu nekkal ci bokk yi moo nu nekkal Italie euh, ku ci ràññeeku la ma ni Rimini ba ñu fa demee teeru nañu gunge ñu won ñu yoon wi ba lañ fa doon dox lépp yem ñu ngi lay sant bu baax di la gën di sant sëñ Fallou Jumaada mi moom itam jàmbaar la mi ngi ñuy jox xel bu baax di sant sëriñ Cheikh moom Darou Rahman euh, wax dëgg yàlla bokk na ci njëkk am initiative di defar ndox ngir doomu aadama yi di ci jariñu waaye comprendre ñu ko woon xëy na yaakaar ne rek jaay waaye bokk na ci ñi gën a saafara yooyu li ko firndeel mooy daf ñuy encouragé guddeeg bëccëg te bari nañu fi jaay ndox ñoo xam ne jàpp nañ ne ñun dañ leen di gêné waaye moom guddi ak bëccëg mu ngi ñu jox ay xalaatam xolam ak xalaatam ak léppam mi ngi ko def ci Serigne tubaat ci maamam ja ak lu yërëm doomu aadama yi ñu moom itam ñu ngi koy sant bu baax euh, di sant itam ñu fi teew ñëpp di leen xamal ne Serigne Touba rek am lii ma leen di bëgg a wax. ci lu tolloog téeméeri at wala matu ko parce que buñ dee wax Touba 1927 lay doon 1927 ak léegi boo ko dee seet téeméeri at yi manqué na dana mat euh, dana euh, lu tuuti xëy na euh, fukki at ak nangam ak benn boo ko seetee ci loolu dëkk bi nga xam ne moo ko sañcoon ba bu yàgguloo nga ne kii kat waajuram moo sancoon dëkk bi te dëkk bi mooy ñaareelu capitalu réew ma loolu jafe la ku ko doon ci seet ci àddina doo ko gis muy benn ñaareel ba dëkk boo xam ne am na ñaari million doomu aadama kenn du fa fay ndox kooku Sëñ Tuubaa la ko yàlla may foofu nag danaa fi dellu si ñetteel ba nga gis dëkk boo xam ne ña néew doole ci ndox mi ñoo yor boroom doole lu leer laa wax ña néew doole ñoo yoraale ña am doole ca naan ma naan ca ndox moom ak lañ cay def lépp nag bàyyiwuma dara loolu sëñ Tuubaa rekk ko am sëñ Tuubaa ko am kon war nañu changé waat xalaataat dellu si waat euh,

waye gasoil bakoy wëgg ci ten ba ak machine ya ya ci xew yépp bam ak ci yow loola def na ni am xel mo meuna rabat xam lool ndax alquran sax bu wax borom xel yi lay waxal kon nak xel lu dafa mat ñi xelu ba ñëw fi dañu wara xel lu ba man fenn ta jàpp ci dox mi képp ko xamne ne ci nan di yàq walla nga ciy wax safaan ba na xam ne yaa ngi naan sa aqu moroom loolu na leer sa aqu moroom ndax defoo ci dara te ñeneen ñoo ci def te ndox mi tëbul tëb ball te tawu ko xaalis bu bare bare bare moo ko yor ñun dañ ko wéruye li tax ñu amee jafe-jafe mooy buñ ko bàyyi woon rek fu neexuwaay waay laaje bu boobaa duñ ci am noonu duñ ci am benn noonu ndax bu boobaa euh, <laughs> dafay tasaaroo tey ci lay gën a li ma bëgg wax xam ngeen ko mais bu fekkee dañ koo vérifier nga xam ne yow balaa kenn dugal daa dem ca banque ba balaa caa dara génn dañ koo signé te ña koy signé mbooloo lañu buñ ca defee dara dañ koy seere loolu arrangé wul ñu jub ñi ñu jubul ñi arrangé dafa leer yeneen organisation ngi fi nit ñi ànd ci ñun bii dafa leer boo xam ne kenn mënu cee triche waaw kenn mënu cee def lu noonu loolu dong la tam ci njaal benn itam bëggoon nanoo tëral loo xam ne bu amoon li lépp mën na ca bañam woote bu nu woote woon boo xam ne dañ koy yóbbu ci rajo bi mu leer nañ ci télévision nga xam ne li ñuy wax téléthon da ngay wooteel ay nit koo xam ne dafa néew doole wala ku feebar wala dara nga di ko wooteel ba noppi di fecc ka naan ñëpp di la séen loolu rafetul ñu ne ñun télé don lañ koy don don mooy loo xam ne day suñ borom dala koo jagleel Sëriñ Tuubaa suñ borom li mu nekk suñ borom da koo jagleel ci fànn yëpp da koo jagleel ak jagleel mooy don don itam xam ne da koy jox fi sabilillah ñaar yooyu yëpp lañ bokkoon dëxañ ko ci biir loolu tudde ko loolu naroon koo def ci kanamu télévision ñëpp jàkkaarloo muy leer nañ du am laam laam fan yii gis ngeen ñu ne ñu booba dañuy yebal moo ne pourtant lu jiitu lii lépp Serigne Touba pour mooy tul ñu am ñu ñu manqué suñu dignité santaane woon na ñu joxe ñaar ko juróom-ñett ci loola lañ ko roye woon ñaar fukk ak juróom-ñett ngir nit ki bu la mënalee da lay sañal te dañ mel ne ku laa bari bët fu ko neex ngay xool jom ji nekk ci murid yi Sëriñ Tuubaa ko def ci ñun ki la teree ne bul lekk lu xaram lekkal lu xalaal kooku moo la jox jom moo la jox jom da ngay liggéey léegi ñu ne dañuy yalwaal fan yii de am na benn ay ay téléphone du ma tudd seen tur ndax du ma yoo xam ne ñu ngi joxe message di wax ne ci liggéeyu sëriñ bi la nuñ ko tuddee loolu kenn gisu ko ci télévision kenn gisu ko fenn man ci télévision laa ko bëggoon def foofu nag laa ci yem ma lay xamal ne yoonu maa u raxmati nekkul ci loolu ndax am na ñoo xam ne maa u raxmati moom moom duñ buub xëpp ko waaye na leer nag yoonu Maawu Rahmati nekkul ci loolu Maawu Rahmati ginnaaw kontaan nañ ko ci loolu tuddatul foofu jëm fii feneen la jëm am nay pexeem mooy ñi nga xam ne Serigne Touba moo nekk ci seen xol guddi ak bëccëg te dañuy def yàlla rek lañ ci def seede muy yéen ñu mel ne yéen ñoo leen di def ci Serigne Touba ñoo soxal Maawu Rahmati waaye leneen soxal la te loolu ci lañ fexe ba ab dëkk. bu jëkk spectacle yu désolant moo fi amoon gis ay doomu adama ak i jigéen ñi sànn ñu sonn di yenu ay paanu fu ne dëgg la du ma ne amatul de waaye wàññi ko tiwo su fekkente ne ndox tiwo ba day bënn ndax pression bu metti yaakaar naa ne ndox manqué problème mu tiwo la am ci Touba léegi amuñu problème mu château amuñu problème mu forage li fi nekk mën naa wax ne doy na te am nañu promesse ci kanam tuuti ndax Euh, ñun dañuy jëf rek balaa yàgg yaakaar naa des na ci teg suñu seen bët ci fu bare bari ci tiwa yooyu ñu mën ko faa améliorer du loo xam ne nag dañu koy jënd du loo xam ne euh, dañu dafa daf ko taw ci suñuy xamee suñuy lijjanti lañ koy fexe indil ko Touba ci Serigne Touba ngir jëmmi Serigne Sidi Maxtaar mi ñu waxoon ñu jaayante ci ngir jëmi Cheikh Mamadou Lamine Bara mi ko wéyaloon ngir jëmi Serigne Saliou mi nga xam ne moo ñu ko digaloon ak sëñ Cheikh si sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne luñ ci xam moo tax ñu xam kon euh, loolu du wala